di am contentement di sant ñi àndal ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi adhéré wu ci biir mouvement bi suñ xol dafa sedd tey ndax euh, dépuis élection yi bi mu commencé ba léegi ñu ngi woon ci campagne yi euh, nekk ci dëkk bi def porte à porte yakaar naa liñ def ñëpp teg nañ seen bët ñun dañuy liggéey te duñ ci boole suñu wax yakaar naa ñu nekk fii yëpp xam nañ mën nañoo seere liñ liggéey chaque jour suba a ngoon guddi ak bëccëg ñoo ngi woon ci dëkk bi di liggéeyal président bi président Macky Sall képp ku koy da ngay boole noppi ñun duñ coow duñ def luñ ñuy xeebe lépp loo xamante ni nii sëñ bi tere na ko ci dëkk bi ñun moytandiku moytandiku na ak moom mësuñoo def dara loo xamante ni nii dañu ciy xeeb wala leneen. yaakaar naa ñi daje fii ñëpp boo leen xoolee ay kilifa lañ suñuy yaay lañ àndal ak suñuy mag ak suñuy rakk fii sën yi ñoo fi ëpp te amul lenn luñ ñaaw loo xamante ne mas nañ koo def démb rek yaakaar naa liñ dem ci ay cérémonie mën na sept xaw ma xaw ma huit démb kon ñun li ñu waroon def ci dëkk bi lépp def nañ ko dëkk bi nag dafa am lu fi nekk loo xamante ni waa dëkk bi war nañ cee yow bu baax a baax mooy nañ xam kan mooy defar dëkk bi ak ki nga xamante ni mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa nañ ko xam bu baax ñu bañ leen a nax. ci coow li amoon ci biir kër xalifa gi ci Daaru Minam moom Baye Modou daal di na koy lu yokk si ne lu ni mel mosul am ci biir Touba. lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni képp kuy di murit am nga ci ruus. te loolu mësu am ci Touba te ñu ko def waa kër Idriss Seck lañ Idriss Seck yow na ci dëkk bi def fi trois jours ay nitam ànd ak moom kilifa gu leen neex ñu yóbbu ko fa te kenn néewu leen dara te buñ neexoon ñu def ñu def ko parce que ëpp ñu ñu fi te ëpp ñu ñu fit waaye nag ñun dafa dañuy sartoon dañuy dañuy dañuy jéem a sàmmanteeg li nga xam moom la sëñ bi di tere ci dëkk bi ñoom euh, premier premier ministre ñëw fi démb di ganu sëñ Muntaxa ñëpp xam ni moom ci yoon wi la juddoo papaam ak yaayam juddoo ci yoon wi faatu ñu ful leen fii ci armeeli Touba yi muy taalib ba Basiiru bu yàgg yàgg démb mu ñëw fi siyaare ab sëriñam Galas Kaltum ànd ak ay nit dem ca kër sëñ ba fekk leen ca biir kër sëñ ba di di di leen fa yooxoo sëñ Muntaxa am lu ko naqari lool te loolu dafa am ay kilifa yeneen yoo xamante ni ñoom lañ ko àndandool te loolu lu ñaaw la gis nga gis nga toroxal ak gan kilifa yi xam nañ Gallas Kaltoum nañ ko ci seede parce que gis nañ ko ci seede yi ñi ci des dégg nañ leen duñ cité koo xamante ni amuñ ci leer waaye moom am nañ lu ñu leer nañ ci ci la bokk te dama yaakaar ni ku respecté sa papa da ngay respecté ko ak ganam ku respecté sa sëriñ ku respecté sa sëriñ da nga ko war a respecté ak ganam sëñ bi bu amoon yaakaar naa ab siif bu fi ñëw di ko seet si sax war nañ koo warmal rawat na koo xamante ni nii mën naa ni la ñoom ñi ñëpp moo la njëkk coon wi Idriss Seck barki dee moo ñaar rek la fi ñëw te deful mës a defal dara Sëñ Tuubaa dañ koy jël bu koo bëgg waaye dara la deful Sëñ Tuubaa kii juddoo ci yoon wi di ab daaru minam yàgg fa nekk fa ña ko doon yuuxoo dëkk ñu daaru minam de dañoo dugg ci yeneen kër ñu indiscipliné ñoo xamante ne ni amuñu benn tekkiwun dara ci dëkk bi liñ bëgg nag ñun duñ leen ci fekk si mooy violence lañ bëgg te ñun dañoo yar ñun dañoo yar xam nga mbir mi kañ lay feeñ hmm. sur le 24 incha allahu rabi buñ ca àggee. moom mu daal ci yokk ne Idrissa Seck ay warkat ñoo ko wër ñoo xamante ni daanaka réew mi ñoru leen. non ñun ñun xoolal wallaahi Idrissa Seck xoolal dana am lu ko naqari ci dëkk bi parce que ñu ko xoolal ñu ko war ñëpp ay tekkatu dil lañ ñooñu ñoo àndoon ak Ablaye Wade lekk ko ba mu jeex ànd ak Macky Sall lekk ko ba seen wërsëg jeex fa. ñu dem ci Idriss Seck ñun dañoo engagé wu gëm président Macky Sall di ko liggéeyal ci dëkk bi di génne suñu alal génne suñu alal te nit ñi fi nekk nii joxuñu leen benn dërëm dañoo bëgg président fii ay jeunes doo nga fi nekk. ginnaaw génnub soxna Astou Boury Mbacké ci biir APR moom baay moo Modou Gueye rafetluwul loolu teg si di wax ne ñàkk waxtaan moo am ci ñoom waaye dinañ ci sekki ay jéego ngir waxtaan ak moom. daal def ko lu leen lu ko naqari man li ma koy conseillé yaa ngi dégg man su doon mën a démissionné googu jëru ko woon parce que problème bi mu am ñëpp koy am ñëpp parti boo dem problème day am ci biir moom wax na ko de nee man président bi defuma dara am na ñum joteel nañ dem ba ci président mu lijjanti leen saa yu ko président jotee te ñun ñii buñ paree dañ ci dox liñ man su ko la muy soxla dina ko am insha allah rabbi bu soobee suñu borom waaye ñun waa Touba xam looñu mën ñoon ñor président Macky Sall bilan bi programme bi mu tegal waa Touba ci son industrie xam ne ñaari junni nit la war a jël ci Touba ñun loolu moo moo ñu ci la ñuy taxaw xoolal élection yi maa la ko wax yàlla nañ fi yàlla bàyyi Idriss Seck am dara Touba man maa la wax lii te na ko bind bàyyi ko xel Touba incha allahu rabi président Macky Sall moo koy gagné ci élection yi ñu nekk.